abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant Yàlla ñun lay tijil kësalaadam sidi baram auzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in salillahuma ala seydina muhammadin fatil xaatim nasil haadi wa ala ali haq qadri muxtaar azim radiallahu taala an ashab rasulillah wala hawla wala quwata illa billah ya ahmad cheikhi wahduri lana bi hada almahdari wal taatufi bi nadratin taatitna bi zafarin ah, ñu ngi ñëwaat tey ci suñu yàbbu nayya waaye yàbbu nayya bi nga xamante ne moo nekkoon bu seydi ahmad sukuru ji yooyu moom jeex na la jeex te ñu ngi ñëw ci Eh, li nga xam ne moo xatmu yaa bu na yeeyi te muy yaa bu na yeeyi nga xamante ne mu ngi ci alxuraan te ki ko joxe woon moom mooy luqmaan luqmaanul hakim <coughs> su ko defee moom la ñëw gis nii léegi après buñ fa jóge ko ñu door a dugaat ci yeneen nasiha incha allah waaye luqmaanu kii yaa bu na yeeyu Seydi Ahmad Sukayri ji moom jeex na ñu ngi gërëm ñëpp ci déglu bi yal na yàlla ma ñu dégg bi ak topp bi waaye ak jëriñoo itam nasiha yi nga xamante ne mu ngi jóg ko ci wàllu yàlla yu sell yooyu euh, ñu ngi ñëw wa is qaala luqmaanu li ibnihi huwa ya'izuhu bi nga xamee ne luqmaan mu ngi wax doomam te boobu mu ngi koy waar ne ko yaa bunayya laa tushrik billah inna shirka la mu azimun yow yow sama doom maa ngi lay dénk bul bokkaale ak yàlla bul bokkaale ak yàlla mu ne ndax euh, bokkaale mu ne mooy tooñ gi gën a rëy ci tooñ yi tooñ bi gën rëy ci tooñ yi mooy bokkaale moo tax boo demee ci bàyyi radiyallahu anhu mu ngi wax ne wa bi yurfau juurul azimu wa innahu bi faydi yanaalu diinu rafuul lawaa'i ci man la tooñ gu mag di dañee ci man la ñu yëkkatee itam drapeau diine l'islam kon eh, Baye moomu wax loolu tax mu wax ko am na beneen baytam bu mu wax pour nga xam ne dëgg-dëgg zulmu boobu juuru boobu moom mooy shirku billahi mooy fi mu waxee ne ashkuru rabbi wa laysa sirriya aaqiran bari tibaa'i mi na ashirki mu ne maa ngi sant sama borom sama mbóot jërmeelut ki gën a ndaw ci samam topp dañ na ci bokkaale ak yàlla te dañuy gis ne luqumaan lii la doon dénk doomam kon dëgg-dëgg li luqumaan doo dénk doomam yaa ngi dégg te yonent yàlla ibrahima alayhi salaam bokk ci ñi ko njëkk a wax ci alquran wa ma ana minal mushrikina léegi bokkatuma ci ñi bokkale ak yàlla day gis ne loolu bàyyi ñëw na confirmer ko tey ci taalibe mi confirmé na ko tey ci doomu ruuxam yëpp yaa ngi dégg génne na leen ci tooñ gi gën a mag te yàlla wax na ne inna allaha la yuhibbu zalimin man yàlla bëgguma tooñkat yi bëgguma leen yaa ngi dégg kon bàyyi yóbbu nañu ci yàlla bëgguñu waaye ñun itam ñu bëgg ko yaa ngi dégg yuhibbunahum wa yuhibbunahu yàlla bëgg na leen ñoom itam ñu bëgg ko loolu mooy ñu ñu Cheikh lu tax parce que inna allaha la yuhibbu zalimin yàlla bëggut tooñkat yi te wax na ne moom moom euh, Luqmaan mu ne inna shirka la zulmun azimun bokkaale ak yàlla tooñ gu mag a mag a mag mag a mag la alhamdulilah bi ñu bàyyi génnee ci bokkaale ak yàlla boobu noonu mu teg ci ne wa wasayna insana bi walidayhi xamalatu ummuhu waxnan ala waxnin wa fisaaluhu fi aamayn dégg nga anushkur liya wali walidayka ilayyal masiru mu ne maa ngi dénk doomu aadama <laughs> wala dénk naa nit dégg nga ci ñaari waajurami yi dégg nga eh, ñaari waajuram ñoom ñoo ko ëmb surtout yaayam ëmb ko yaa ngi dégg ci eh, coono ak coono ci lottu ak lottu yaa ngi dégg ba bim ko ëmbee coono la yaa ngi dégg feebar yi muy daj wëcc yu muy daj xel mu teye muy daj ba ni doomu aadama bi di màggee foofu di évoluer foofu noonu ba nekk nit ku doomu aadama boobu noonu mu juddu yaa ngi dégg bu juddoo itam beneen coono la ci nàmpal ci defar ko yaa ngi dégg ci yaramam buy tàng yaayam du nelaw buy jooy di liggéey dégg nga coono bu nekk mu ciy daj moom yaay ji yaa ngi dégg ba ni doomu aadama boobu noonu mën a taxaw taxawaay boo xamante ne dafa nekk nit koo xamante ne dafa maanaam mat ci ci ci ci taxawaay boobu noonu kon nga gis ne mooy wax na na ala wax nin maanaam coono ci coono yaa ngi dégg yoo xamante ne yaay ji ëmb na ko doomam doom ji wan a góorgóorul nag eh, eh, eh, ci loolu mu ne waaye wa fisaaluhu yaa ngi dégg fii amay ni maanaam ci kéem bi yëpp ci ñaari at la maanaa euh, fer diggante fa muy ëmb ak fa muy fe feree yëpp ñaari at la waaw moo tax mu ne wa fisaaluhu fi aamayni maanaa ci feram yaa ngi dégg mu ngi tollook ñaari at yaa ngi dégg mu ne anishkur lii wali walidayka ilayal masiru mu ne nag ma sant man yàlla subhanahu wa taala ak ci saw ñaari waajur yooyu nang leen gërëm ñoom ñi nga xamante man maa leen maa la jël dugal la ci seen biir ñu denc la ba keroog ni nga mën a génne yaa ngi dégg sooy sant santal sa waajur yi nga sant ma man yàlla subhaanahu wa taala te nga xam ne yéen ñëpp yaa ngi dégg eh, ci man ngeen di dellu yéen ñëpp ci man ngeen di dellu subhaanahu wa kon waajur lu lu lu lu rëy la waajur yonentu bi sa alayhi wax na ne dégg nga eh, eh, képp koo xamante ne yaa ngi doyodal sa waajur doo dugg aljana kuy dal sa waajur doo dugg aljana kon waajur lu jar a fonk la waajur lu jar yëkkati la waajur lu jar a bëgg la waajur lu jar defal teraanga la parce que lépp loo leen defal rek loolu dafay delluwaat ci yow waajur nag ni nga ko waxee am na ci zaahir am na ci baatin parce que sëriñ itam waajur maanaa la waajur maanaa la parce que mooy kii yar sa roxo bi yaa ngi dégg ba delloo la ci yàlla subhaanahu wa dégg nga kon jamono bi nga xam ne mu ngi yar sa rox bi foofu itam la la sëriñ bi ëmbee wax na na ala wax nin étape par étape bi nga xam ne yaa ngi ko toll yow euh, euh, euh, yow suufi bi tarbiya yow suufi bi yar sa bakkan bi ngir àgg ci yàlla étape par étape la sëriñ bi di sonne ci yow dégg nga jamono bi nga nekkee ci alamul xijaab yaa ngi dégg nga nekk saalik dégg nga nga sóobu mu nekk ci ak yow nekk ci ak yow di yar di yow di yar di yar di yar di yar ba ni nga nekkee ma juub mu nekk ci ak yow nekk ci ak yow nekk ci ak yow ba ni nga amee wusul yaa ngi dégg wusul boobu nag boo ko amee foofu nga nekk al mawludu maratayni ku juddu ñaari yoon yaa ngi dégg su boobaa rek nga gis ne juddu nga ci zahir ci waajur waaye juddu nga itam ci baatin ci sëriñ foofu nag eh, waajur bi itam ba sëriñ bi kon dafay sonnaat ci yow sonn ci yow ci yar sa bakkan bi sonn ci yow ci def ci yow xam-xamab yàlla sonn ci yow xamal la tur yàlla yi xamal la melu yàlla yi xamal la maratibu yàlla yi xamal la eh, eh, eh, zaatu ilaahi bi xamal la mboolem xadaraatu yàlla yi yaa ngi dégg xamal la maanaa dawru nu boobu bi dawru wilaaya bi ak ak ak ak bu bu bu xilaafa bi ak yaa ngi dégg yooyu yëpp mu xamal la ko yaa ngi dégg kon sëriñ boobu itam sonn na ci yow dégg kon sëriñ boobu itam na ko bàyyi xel moo tax xamal ne. aljana mu ngi ci ron ndiggu waajur yi waajuru zahir bi ak waajuru baatin bi itam aljana boobu nga xam ne nag mu ngi ci ndiggu dégg nga eh, eh, waajuru baatin yi mooy makaamaat yi nga xamante ne sëriñ bi mu la koy yéege ci yàlla nga koy dund muy neex nga koy yëg muy neex ba tax nga sañ wax ne sama sëriñ def na ci man loo xamante ne sama waajur mënu koo def ci man waaye dëgg-dëgg waajur bi itam ci zaaxir lam def ci yow mooy lan mooy moom moo meññi ba sëriñ bi mën a jot ci yow ba def ci loo xamante ne yaa ngi dégg waajur bi defu koo ci yow kon booy sant gërëmal ñaari sëriñ yëpp ñaari waajur yëpp moo tax alquran wa bil waalidayni ihsaanan naga rafetal ci diggante ñaari waajur yi dégg nga ginnaaw wa qadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyyaahu dégg nga wa bil waalidayni waalidayni yooyu sufiyanke yi dañ koy firee ne mooy waajuru maana ak waajuru zahir waajuru zahir mooy waajur yi la meññi jur la waajuru maana nag mooy waajur bi nga xamante ne moom moo la eh, tarbiya àggale la ci biir pay bi dégg nga subhaanahu wa taala léegi nag mu teg ci mu ne nit kooku ñu ngi koy dénk mu mu mu mu mu sant ma waaye mu sant waajuram yi nga xamante ne sonn nañ ci moom wayn jaahadaka wayn jaahadaaka wayn jaahadaaka ala an tushrika bii maa laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa saaxibhuma fi dunya maarufan wa tabic sabila man anaaba ilayya summa ilayya marjiukum fa unabbiukum bima kuntum taamaluun ñaa ngi dégg mu ne sa waajur yi su ne dañ lee woo dañ lay xëcc ci nga bokkaale ma ala an tushrika biya su fekkee dañ lay woo dañ lay xirtal dañ lay xëcc ci yow nga bokkaale ma yaa ngi dégg nga maa laysa laka bii ilmun ci loo xamante ne yow amoo ci benn xam-xam xamoo ci dara dañ lay xëcc rek pour yow nga bokkaale ma nga weddi ma man man man yàlla subhanahu wa taala yàlla mu ne fala tutiuhuma bu leen topp kon gis nga li jiitu xaq waajur lum rëy rëy rëy xaqu yàlla moom moo jiitu képp koy wax ne itam maa ngi topp sama xaq waajur maa ngi topp wut lu neex sama waajur ba nga bàyyi fi xaq yàlla itam perte rek ngay def perte ngay def yow ak sa waajur yi parce que sa waajur yi dinañ leen xisaab dinañ leen àtte lu tax ñu yar la ci loo xamante ne fàttaliwut la yàlla kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kon lu jar a bàyyi xel la kon sa waajur la wooyee itam ci loo xam ne daf lay bàyyiloo yàlla bu leen ci topp yàlla ne bu leen ci topp aaya bii sab bokk na ci sababu nuzulam benn saxaabi yu boo xam ne dafa tuuboon dugg ci diine lislaam mu jékki-jékki ba yàgg yaayam ne ko dootuma lekk dootuma naan feeg weddiwu Muhammad dootuma lekk dootuma naan feeg weddiwu Muhammad gis nga waajur ni mu jegee doomam gis nga loolu ni mu méttee dégg nga saxaabi bi dem wax ko yonent sa sallallahu alayhi wasallam yonent bi jaaxle xamul lan la ko wax parce que mënu ko wax bàyyil sa yaay waaye nag ci saasi ci la aaya alquran bi wàcc wa in jahadaka ala an tushrika bii maa laysa lakka bihi ilmun fala tutihuma yaa ngi dégg su fekkente ne woo nañ la yaa ngi dégg ñu ngi lay xëcc ci nga bokkaale ak man yaa ngi dégg man yàlla subhaanahu wa taala ci loo xamante ne yow amoo ci benn xam-xam bu leen ci topp fala tutihuma bu leen ci topp waaye wa saaxibuhuma fi dunia maarufan na nga ànd ak ñoom nag ci wàllu àddina nu mu gën a rafetee ak luñ nekk nekk nekk nekk ay chrétien luñ nekk nekk nekk nekk nekk ay yahud luñ nekk nekk nekk ay xéefér na nga ànd ak ñoom nu mu gën a rafetee yow julit bi dégg nga na nga ànd ak waajur yi nu mu gën a rafetee yaa ngi dégg moo tax wa saaxibuhuma fi dunia maarufan yàlla tekki na wattabi sabila man anaaba ilayya toppal yoonu ki nga xamante ne dellu na ci man te kooku mooy kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm, aaya bi dafa am ñaari maana wattabi sabila man anaaba ilayya toppal yoonu ki dellu ci man mooy toppal yoonu ki nga xamante ne mu ngi jaamu yàlla di sellal gëm yàlla ne am na topp ko topp shariatoom di julli julli juróom di génn azaka su amee alal aji màkk su ko mënee di woor weeru kooram kooku na nga topp ci yoonu kooku noonu waaye wattabi sabila man anaaba ilayya beneen bunt bi mooy nanga topp yoo sëriñ bi nga xamante ne moom ku àggale ci yàlla yaa ngi dégg nga fexe ba mu àggale la ci yàlla parce que wa maa umiru illaa li yaabudullah yaa ngi dégg ay yaabudullah ay bi yaabudullah yaarifullah loolu la ibnu wax ay bi yaabudullah yaarifullah lim jublu ci ngeen eh, jaamu yàlla mooy ngeen xam yàlla surtout donc xam yàlla boobu nag munoo ko am mukk lu dul da am sëriñ bu àgg ci yàlla moom moo lay mën a àggale ci yàlla loolu moo tax alquran ne wattabia sabila man ala anaaba ilayya toppal yoonu ki nga xam ne dellu na ci man suma ilayya marjiukum fa unabbiukum bima kuntum taamaluun na ngeen xam ne yéen ñëpp ci man ngeen di dellu dégg nga man maa leen di xamal li nga xamante ne moom ngeen doon jëf yéen ñëpp yaa ngi dégg kenn ku nekk la nga daan def yaa ngi dégg man maa la koy xamal man yàlla subhaanahu wa loolu la Luqmaan euh, dénk doomam yaa ngi dégg euh, pour mu bàyyi ci xel mu ne yaa bunayya innaha in takku misqaala xabbatin min xardalin fa takun fi saxaratin aw fi samawaati aw fi l yati biha allah inna allaha latifun xabirun yow sama doom xanaa xamoo su fekkoon ne am na lu toll ni benn pepp pepp ak xardal lu tuuti lu tuuti ci pepp yaa ngi dégg mu nekk ci biir montagne fii fi saxaratin mu nekk ci biir montagne pepp bi nekk pepp yoo xam ne dafa tuuti lool waaye mu nekk ci biir montagne aw fi samawaati wala mu nekk ci kaw asamaani aw fil ard wala mu nekk ci biir suuf si yaati biha allah man yàlla dinaa ko dikkee yaa ngi dégg dinaa ko dikkal dinaa ko jëlsi waaw amut lenn lenn loo lenn loo xamante ne mu ngi nekk benn mbindeef bu mu gën a tuuti tuuti loolu la ci yàlla mu lu dul ne man yàlla dinaa ko fekk fa ne lu mu mën a doon yaa ngi dégg mu teg ci ne eh, inna allaha latifun xabirun xanaa xamoo yàlla ku xereñ la yàlla ku ku ñewent la waaye yàlla itam aji dëñ kumpa la aji dëñ kumpa la xabirun aji dëñ la waaw latifun ku ñewent kon doomu bi fu mën a nekk na gëm na yàlla dina ko fa fekk mbindeef bi lu tuuti tuuti tuuti na gëm na yàlla dina ko fa fekk mbindeef bi fum mën a nekk itam lu mu ruqee lu xuut xuut na gëm na yàlla dina ko fa fekk yaa ngi dégg yàlla baywut kenn ak foo mën a nekk inni maakum ayna ma kuntum wallahu bima taamaluna moo tax nit war a gëm boppam am na foo toll da ngay gëm sa bopp gëm sa bopp mooy man maa ngi nekk ak yàlla kenn bindut ma ku dul yàlla subhanahu wa taala yàlla mi ma bind bawut ma waxtu nekk mu ngi nekk ak man wax na ma ne foo mën a nekk maa ngi nekk ak yow waaye rawatina fi mu dëggalee ci aaya bi ne amul benn pepp boo xamante ni lu mu tuuti tuuti tuuti même su nekkee ci biiri biiri montagne yi wala mu nekk ci biir suuf si wala mu nekk ci kaw asamaani du tee man yaa ngi dégg dinaa dinaa ko fekk foo mu nekk dinaa ko fekk fa mu nekk dégg nga montagne yi nag dégg nga am na lu muy fri boo ñëwee ci suufiyanke eh, suuf si itam am na lu muy firi boo ñëwee ci suufiyanke yi itam am na lu muy firi boo ñëwee ci suufiyanke yi yooyu maratib yëpp eh, eh, am na lu muy firi léegi nag nga door a ñëw ci xabbatu bi yaa ngi dégg mooy pepp bi pepp bi itam am na lu muy firi pepp boobu noonu fu mu mën a nekk rek yàlla ne dinaa ko dinaa ko dinaa ko fekki foofu noonu kon nañ bàyyi xel li tax yàlla di wax ne kon kullu lekk leen kullu lekk leen dégg nga beneen bi moy mu ne yaa bunayya aqimi salaata wa amur bil maarufi dégg nga wanha anil munkar wasbir ala ma asaabaka inna dalika min azmil umur yow sama doom dégg nga yow sama doom mu ne na ngay julli aqimi salaata na nga taxawal julli foo toll na nga taxawal julli dégg nga parce que julli dafa am lu rëy lu muy def ci nit mooy inna salaata tanha anil fahsha wal munkar julli dafay jeexal ci yu ñaawte fii ak yu sibi yu bon yi julli daf koy jeexal daf koy dindi ci nit kon képp ku julli tey sa yu bon di gën a yokku képp ku julli sa yu baax yokkut xamal ne kon yow julleegoo waaye yàlla moom li mu wax ci julli mooy dëgg képp koo xam ne yaa ngi julli te dëgg la ci yow sa yu bon yi ñu ngi deñ yaa ngi dégg yu sibi itam mu ngi deñ ci yow da ngay nekk ku sell da ngay nekk ku laab da ngay nekk koo xam ne ku la gis daf lay bëgg parce que yaa ngi julli Mawlaa Cheikh Alassane Dème nag waxoon nañu ne wa ma salaatu illa sillatu julli du dara lu nga jokkoo ak yàlla rek waaw kon nañ bàyyi xel lan mooy julli dégg nga <coughs> wa ma salaatu illa sillatu julli du du nga jokkoo ak yàlla yàlla nag fii yaa ngi jokkoo ak moom daa iman yaa ngi dégg mu ngi yaa ngi ah, yaa ngi yaa ngi nekk ci jàmm yaa ngi génn ci jafe-jafe yaa ngi génn ci yuñ sib yi yaa ngi génn ci shahwaat yi loolu kese la waaw ñu bàyyi ci xel beneen bi mu teg ci mu ne wala tusair xaddaka linnaasi wala tamshi fil ardi marahan bul di wëlbati sa kanam gi ci nit ñi maanaam sa lexi nit nga jàkka ñëw ba jàkkaalu nit won ko ginnaaw di ko xeelu woon ko sa lexi yaa ngi dégg ba du la gis comme kuy dummóoyu nit waaw bul dummóoyu nit dégg nga comme nga ne nit ki bu ko dummóoyu jàkk jàkkaarloog doomu aadama di ko dummóoyu déedéet wala tu sair xaddaka li naasi ñeel nit ñi nit ñi bu leen dummóoyu bu nit ñi daw ci jëm ci yow nga dummóoyu leen dafay am am na koo xamante ne <clears throat> am na alal nit ñi daw dem jëm ci moom wala nit ñi am nañ soxla daw jëm ci moom moom mu leen di dummóoyu di leen won ginnaaw mu ne bu ko def wala tu sair xaddaka li naasi dégg nga mu ne wala tamshi fil ardi marahan bul di dox ci kaw suuf an nekk ku yàkkamti ngay për fari di yàkkamti lool bu ko def yaa ngi dégg inna allaha la yuhibbu kulla muxtaalin xuur yàlla buggut ñoo xamante ne dañuy dox dox yu gaaw yooyu noonu wala dañuy puukaréewu di dox di jaay affaire di puukaréewu di ubbeeku di yaaweeku yaa ngi dégg yàlla buggut loolu yaa ngi dégg gis nga lii sa doxalin sax dañ lay dañ lay yar ci loolu noonu dégg kon yow suufi bi bàyyil xel sa doxalin ci yàlla su fekkee ne yaa ngi dox ci yàlla dox bi gaaw na bul tiitaroo ñeneen ñi nga xamante ne seen dox dafa yéex yaa ngi dégg bul bul bul bul jaay affaire ñenn ñi eh, eh, maanaam eh, seen ndax seen dox dafa yéex parce que suufab yàlla bi nga xamante ne yaa ngi ciy dox suufu yàlla nag dafa yaatu suufu yàlla am na ci pay bi salaatu wa salaam suufu yàlla am na ci pay Cheikh Tidiane radiyallahu anhu yaa ngi dégg waxtu woo ñëwee ci yooyu xadaraat. dégg nga da nga fay gis suufi bi naka la naka la fay doxee yaa ngi dégg waaye soo fay dox na fa dox ànd ak teggin na nga fa dox ànd ak yar parce que tëjëlli yi nga xam ne yaa ngi daj ak ñoom foofu noonu tëjëlli bu nekk rek ak feeñuwaay boo xamante ne yàlla moo ko feeñoo ci moom. yaa ngi dégg loolu moo tax yonentu doon wax Maaz ibnu Jabal na nga ragal yàlla ci toq ndox yi waaye nanga ragal yàlla itam même ci doj yi na ci ragal yàlla dégg nga moo tax mu ne. Euh, booy dox ci kaw suuf na nga dox temp temp bul di dox ji jaay tiitar di yaawee ko di ubbee ko yu demee noonu dégg nga mu wax sit fi machika na nga jublu ci sa dox booy dox nga jàkkaarloog sa kanam di dox yaa ngi dégg waaye na nga ànd ak dal bu nekk di gestu di kii loolu nit ku ku ku ku ku kilifa dëgg du ko def daal dégg nga mu wax dut dégg nga min sawtik sa sa sa sa baat aussi na nga koy téye. bul nekk koo xam da ngay wax ci kaw di coow nit ñi di la dégg yaa ngi dégg loolu nag jigéen ñi góor ñëpp a ci yem jigéen ñi nag souvent lañ koy gën a dénk waaye jigéen ñi ak góor ñee ci yem parce que lii eh, eh, eh, Luqmaan moo ko doon dénk doomam te doomam bi doom bu góor la woon yaa ngi dégg booy dox na nga xool sa kanam na nga jublu sa kanam jarut geestoo jarut param-parami jarut di jaay affaire itam ci doxin bi di yaawee kook yooyu jaru ko ba noppi itam waxdut min sawtik sa baat nanga ko tiye booy wax doo coow di yuuxu ci kaw ma nangama am na nit ñoo xam ne noonu lañ mel dégg nga loolu nit waru koo def dégg nga na xam ne inna ankaral aswaat la sawtul xamir mu ne baat biñ gën a bañ ci baat yi baat biñ gën a sib ci baat yi mooy baatu mbaam waaw mooy baatu mbaam kon fexeel ba bul mbaame yaa ngi dégg fexeel ba bul mbaame fexeel ba bul mbaame ci baat waaye mbaam am na jikko joo xam ne dëgg-dëgg boo ñëwee ba foofu na nga boo ñëwee ba foofu na nga parce que lu tax mbaam luñ ko yen rek attan na ko te mbaam du dellu ginnaaw mbaam maa ngi arrière du ngeen ko dégg mukk mbaam maa ngi jàmbat du ngeen ko dégg mukk luñ ko yen itam dafay dox ak moom donte mu ngi onk nag dafay dox ak moom waaw waaye day jàmb nag waaw jikko jooju moom baaxut ay temps day jàmbu yaa ngi dégg moom mbaam ay temps itam baatam bi neexut moo tax yàlla ne dégg nga eh, inna ankaral aswaati la sawtul xamir baat bi gën a bi gën a sib ci baat yi yaa ngi dégg mooy baatu mbaam su ko defee fii la nasaa i jeexee ci yàbbu na ya ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla déggloo ñu ko yàlla yàlla dundloo ñu ko yàlla na yàlla toppaloo ñu ko wa ma zalika ala allahi bi azizin wasalaamualeykum wa rahmatullah allahuma salli ala sayyidina muhammadin haqa qadrihi wa miqdaaril azim yawman wa ay wa ma la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah kaman rama darkal wasi aidan qad aktaru walakinnahum qad qadaru mutaraddama يكسبت حب المصطفى دون غيره ولو أم كلثوم ولو كان مريما abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant Yàlla ñun lay digil kese la dem sidi baram